fi indi tey mooy benn rapport boo xam ni euh, benn euh, kuréel bi nga xam ni mu ngi tudd ITIE muy kuréel boo xam ni euh, dafa sukkandiku ci leeral lépp li nga xam ne am na ci secteur boo xam ni mooy secteur u mine yi walla ay pétrole walla ay gaz rapport bi nag mooy li xew 2019 commité national bi nga xam ne moo ëmb wax bi dafa boole ñi nga xam ne dañuy xeexal askan wi di toppatoo askan wi ñuy wax société civile ñi nga xam ni itam dañu nekk ci ay entreprise nga xam ni mine la muy or muy ciment muy phosphate lu ñu am rek bokk nañ si ak ñi nga xam ne ci administration bi lañ bokk muy ministère yi finance économie waaye itam ministère mine ak pétrole ñooñu ñëpp ñu ngi ci ministère de la justice ñëpp bokk nañu ci comité bi moo tax su may wax ci seen tur lay waxe mu nekk turu ci turu kuréel boo xam ne kuréel bu mag la te ànd ak ay nit ñoo xam ne dañoo xarañ ak ñi nga xam ne itam dañoo euh, dañuy daan seen doole bés bu nekk pour yëpp a leer ci secteur boobu li ñu gis ci rapport bi mooy ne ren cent soixante et un milliards def nañ ko ci li nga xam ni jóge na ci secteur boobu gis nañu itam ne wax dëgg yàlla euh, am na xaalis boo xam ni euh, am na décret sax bu boo xam ne Sénégal am na ko mooy contenu local mooy naka la askan bi naka la nit ñi nga xam ne ñu ngi liggéey fii ci Sénégal mën a am itam ci xaalis boobu ñuy wax ci xaalis boo xam ni dafay jóge ci entreprise yi di dem ci ñi nga xam ne ñoo leen di liggéeyal loolu itam xaw na sax jege li ñuy wax euh, huit cent quatre vingt milliards kooku nag xalaat naa ne xaalis bu bare la Ah, suñu xoolee bu baax nag soo jëlee euh, ñeent benn benn bi day dem ci ñi nga xam ni Sénégal lañ bokk Sénégal lañ lañ nekk mooy ñi nga xam ni ay sénégalais lañu waaye comme secteur bi dafa nekk secteur bu xaw a métti di laaj ay technologie yu bari euh, côté boobu itam ñu ngi ñaay gouvernement bi ak secteur privé ñu gën a góorgóorlu pour ay sénégalais yu ëpp loolu mën a am ci four nekk ay fournisseurs ci entreprise yi euh, li ñu bëgg a wax itam mooy euh, leeral nañu euh, li nga xam ne day dem ci communauté yi jóge ci entreprise parce que entreprise yëpp dañuy liggéey ak communauté yi nga xam ne ñu ngi nekk ci seen wet ñoom ñëpp dugal nañ ci seen loxo te seet seetlu lañ ne yegg na ba 3 milliards kon loolu yëpp xaalis bi ñëpp ñëpp génn entreprise par entreprise fu mu dem luñ si def loolu yëpp mu ngi ci rapport bi kon ñu ngi gërëm ñëpp di ñaan yàlla nag déwén rapport bi gën a xóotati gën a yaatu ñu mën a wax yëpp yoo xam ni eh, xëy na nit ñi dinañ ne ah bokk nañ si defe naa ne loolu lu am importance la ma bëgg fàttali li ministre secretaire général de la présidence wax sànq mu nekk ci suñu euh, euh, ci suñu constitution li jóge ci entreprise na nekk miine na nekk pétrole na nekk gaz askan bi moo ko moom kon ñun suñu liggéey mooy ñu mën a leeral yépp ngir askan bi xam li xew te askan bi mën a itam gis seen bopp ci loolu ma bëgg itam fàttale ñëpp ne ñun yemuñu ci def benn lancement dañuy dem ci région yi wax ak administration wax ak góor yeeg jigéen yeeg xale yi étudiants yi élèves yi wax ak góor ak jigéen ni ma ko waxee sànq nappkat yi béykat yi ñëpp lañ si boole comme saa ñu gën a xam lan mooy njëriñu secteur bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee kooku dinañ ko def su lii paase dem ci ay région yu bari yi nga xam ne am nañu ay mine walla am ñu ngi koy ñu ngi seet pétrole wala gaz foofu mën a waxtaan ak askan wi ndax looloo ñu yëkkati